ki Sénégal mbokki àddina lu waay gàtt dégg-dégg dégg nga ni sëriñ seex tawféex ku jëflanteeg moom sa aajo paj di yëngu lépp lu jëm si wàllum pajum cosaan ñi ràññee lool fii ci Sénégal ak bitim réew lépp lu jëm si wàllum seet bàyyi koog moom bés bu la seetalee nga mel ni seetu nga jàkkaar lool lu la waxtu du dañ xalimaam du laal suuf ku wax sëriñ seex tawféex xam ko si jaaro yu efficace yi nga xam ni mu ngi dëxëñ ci biir alxuraanul karim aada ak sunna li ko tax a jug mooy yëg avancement si sa barabu liggéeyukaay ubbeeku ba faw ànd bayre bu saawaan baawaan aar la biir ak biti daa nga bëgg kayit bés boo jëflanteeg sëriñ Cheikh Tawféex foo bëgg dem si àddina di nga fa dem lépp mu teg ko si yàlla ak yonente beeg alquraanul karim indil ñu ay ndomb ak ay càngaay yu mucc ay yi nga xam ni boo ko jëfandikoo kenn du la liggéey te ku la liggéey mu dellu si moom jigéen ju gis règle muy métti lool hémorroïde doxum siti sonal la lool maa ngi leen digal nga jëfandikoo garabu Serigne Cheikh Tawfekh yi fépp foo nekk si àddina mën nga jëflanteeg Serigne Cheikh Tawfekh si numéro téléphone yi neexul ba neexul waaye kenn du Serigne Cheikh Tawfekh si mim réew ma ne aawa bu sàkkal sa kër ba sa dëkk jar fasu naar jar na naaru góor jar na wajan ay laay tuma koo xaar gënal leen ay farandoom ñoo ngi nii doom ay sunu ndam li dañu koy feeta tey ba suba kenn mënu si dara taalibe yaayam ak ku mu àndal tey nga wadd ana ñi faral génn leen boo yéen la ñuy xaar ñun kat dañu ñeme woon kat di xaar sunu waal e tey ñoo ko moom ay waay na yekk a gi dikk na eh, ku soom na yekk te gën a gi kalab ku soom na yekk borom gën a gi dikk na ay kalab e eh, ku soom na yekk maa la ci tegal li ne wax yu xeewi nag wax yu xeewi nag man la wax wax yu xeewi waxati ko man ma gisee wax dama tiit sax billaay non bi ñoom bii année euh, bëlis yi non tey dama kontaan. salaamaaleykum soxna Bousso daa diri valise quoi soxna ay vax la fi wàccee ay vax la teg noonu si kanamam doon bëgg toroxalaat mareetu pour yaakaar ne mareetu indiwul dara mu jël ay vax am taaba taaba la mu yor dóor ko ko ay supporter am yuux ñu ne waaye aawa rek aaw benn xët lay xët danaan faaj ñu nërit xët-xët bu may ko tuuti bu ñëw léegi bu neexee yàlla boo seetaanee série di ñëw xaar nag mooyee de mooyee daal di di ñaari wël dara jox maleetu mu jox kii soxna Bator Falis jox doomam Falis akub gaam bu ne muut wax amul dara xewut jël 400 000 jox kee soxna Bator. jël cent mille ne ko duut géwal ba non géwal bi moo yay tournée géwal bi nag mooy yay tournée yi rek xaar. ko nag liñ am na solo de liñ suyee foofu gis nga ko am na ci yoo xaayal nag ànd ñoo kenn nag bu xaas bi ne tëll ñuy lox day léeg-léeg bi mu gisee xaas bi dafa dafa ne awaayaay. waa sama xol bi sedd na sama xol bi sedd na bilaay malal maa ko bëgg fii tey sagal na aaw yi aaw yi tey toj nañ fii sama maa ngi sedd ñëw. bi billaay xam nga ne bu nekkoon keneen ci kii yi rek lay nekk ci ba tool mais fi mu tool nii ba xaalis bi jógee rek mu tourné mu retourné aussi maareetu géwél yi de mooy loolu noonu am na ñu nga xamante ne de suñ lay kii bu nga gis keneen danga gis ñu commencé kii nii ñu wëlbatiku foofu moom li ñu dafa am solo moom. xanaa ne géwél bi mu doon sax koo eggale bañ na koo deux ko ah xam naa ne bu too kay dafa dof waaye yàgg naa kaa war ba muy jël njël mu waroon ko géwél bi kay yàgg na koo war du tay kese bi muy jël njël si la mareetu ñu indi xaalis naa ko dinaa la teral ba nga defal loo xam ne lu la kenn mus na defal géwél bi war ko géwél bi kay yàgg na koo war daal di tëggal ma ne aawa yaay aawa yaay aawa yaay Mariette mooy suñu aawa mooy suñu yaay aawa yaay ma ne aawa bi la sàkkal sa kër ba sa njaboot taxaw janna ko sa kër janna naaru kër janna wajal aawa bi la sàkkal sa kër ba sa njaboot taxaw moo ma gënal ci naan ma mus ba ma ne ngee mu naan ma sip ana gaa yee ñu faral Mariette génn si lees ñu faral soxna bu dër làqu leen ni may ñu yoon mi ndam lii ndam lii ku ci bokkul xeex gi da lay dal eh, waaye lii nekk lu neexul da nga cee baa nga bëgg doon ko fii di xabar di xabar aawa yee rek aawa yee ko aawa yee ko eh, aawa xale aawa xale aawa xale awa Sylvie awa Tanki awa xale. gisal géwélam bi barke Serigne Touba dafa xam li muy wax gis nga mën a wax xam li ngay wax ko gën géwél bi Marietou andi barke Rasulullah li wax ci géew bi jar na ku ko fekkewut fekke woo dara géwél bi mën a wax xam la ngay wax ko gën mayit keneen keneen moo xam ne dara nag ba mu ne ko duur cent mille mu tiit bay lox naan awa yaay. <laughs> non tey groupe bi bu yombee rek ci ñun la groupe bi tey dafa war a neex. waaw moom la te day xaddi gañe nag ba faaw li xam am moo tax tey daal bu ñu bëggee daal ndeysaan dañuy lancé suñu mbégte rek waaw xasu bees day bisu tey bi waaw tey dund leen ko jàmm yéen aawa bu kër ah yéen yaay waaw waaw yéen a ma gën a ah damay rocc rek jàmm waaw kay sosuwaa jàmm